bokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu sante sun borom subhanahu wa taala julli Mustafa sallallahu wa sallam di jaajëfal Cheikhul Xadim noo ngi bokk yépp di leen ziyaar di leen di ci jiital kilifa yi sunu xarit sëñ Mamor Mbacke suma dugg si jàng ko nuyu baax a baax di ko ndokkeel di ko def wàccuwaay sëriñ Xaadi mi daaneel léegi kàddoom ndax xel yi bari na waaye mënoon nañu féetewoo déglu waxtaan lépp mënoon na ko def ñu rafetlu mooy tam taxawaayam bu baax a baax a baax ci liggéeyal alquran taxaw ci taxawaay bu ràññiku bu ñëpp xam ko yàlla ko yàlla dëgëral lu dolli kàttan ba màggali mboolem ay yéeneem ndi sëñ Ahmadou Ndiaye Ngeeraan li ci xaaj wax lañ ci wax ñu rafetlu ay kàddoom lañu ndax dëggu gi ciy feeñ te lépp doon njariñ Euh, loolu ñu ngi koy ñaanal mooy itam yàlla dëgëral ko baax a baax dolli ko kattan ndokkeel sëriñ Mballe bu baax a baax a baax ci liggéey bu rëy bi mu nekk euh, mooy itam taxa boo xam ne lu ñëpp rafetlu la ni ko sëñ Xaadi waxee léegi te alxuraan teg tànkam ci alxuraan ak xasaayit di jàngal alxuraan di jàng xasaayit di ñaar yi nga xam ne mën nañu wax ne mooy liggéeyu sëriñ bi alxuraan doon léppi sëriñ bi wax ne alxuraan mooy waajtaayam mooy compte bancaire am mooy ndàmbam mooy léppam bis dafa waxoon ne fam ko ñëw ci moom ne ko ndey mbàkki dama bëgg ko ma mu mucc ci gémmiñ sëñ bi mooñ tekaale ci gémmiñ ne ko ne ko salaaw may nañ ma ñaan mu mucc ci gémmiñ ne ko ah yow moom fu la gémmiñ di jaar mooy lay sama gémmiñ de mooy la ma gënoon a bëgg dañ ma ko xañ ñu ko loo gënoon a bëgg mu ne dëkk Tuubaa di jàngale alxuraan nekk Tuubaa di jàngale alxuraan mooy lam gënoon bëgg te ñu gàllankoor ko ci kon mooy kon wan na lam gënoon bëgg mooy jàngale alxuraan xasaayid nag mooy tool bi nga xam ne ci la doon bay di ci liggéeyal boromam di ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu jël liggéeyam yëpp féetli ko foofu kon loolu ñu koy rafet lu baax baax di ko ñaan ma it yal na ko yàlla gën a dëgëral moom suñ bolle jox ko fa nag wér ba mu àggali mboolem ay yéeneem te sint tubaa nangul ko te nangul na nu waxoon ña dañoo bëgg ñu waxtaan ci sëriñ bi sëriñ bi nag day géej goo xam ne soo ci bëggee wax doo xam tefes goy jaare doo xam tefes goy génne waaye kon dañu jël ak wetuk li sëñ xaadi junj léegi mooy sëriñ bi doon jëm doon abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ñaari baat yooyu nekkoon baat bi nga xam ci la daa adressé woo boppam muy daraja ju rëy daraja ju mag muy jaamu bu yàlla bii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaddu nekk daraja ju kawe ci yàlla xoole yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu gën a jege boroomam xabdu la ko suñu borom tuddee asra bi abdihi ker ba nga koy rañaane defal ko lu musa defal kenn ku mbind muy defa ko isra wal mi'raj foofee abdu la ko suñu borom tuddee kon abdu kon daraja ju màgg màgg la ñaari baat yooyu mu tuddoon la nga xam ne mooy adresse moom la daa adresse xuntal mooy abdullah xadima rasuli yi lu ci nekk daf ca def da caa àgg fu ci kenn àggut su dee jaamu yàlla gi dem nay booy wax ne ibaadatuna xaaxat ibaadati xayrina sama jaamu yàlla ma sutuba keneen ku dul man sama jaamu yàlla féet na kaw jaamu yàlla ku dul man loolu lu ko gën a rëy amut te loolu it da caa jëf lu ci kenn jëfut lu ñëpp teg bët lu ñëpp mën a seere kon jërut di ca sori bu dee xadim rasul yi itam muy liggéeyal yentu saas moo te mu def ca lu ca kenn defut ndax bi bim jógee ba li ba ngay liggéeyal borom jaar ko ci nu saaslam lim tàmbale mooy njëkk dafa njëkk a jaayanteeg yonent sa sallallahu alayhi wasallam dafa jaayanteeg moom te jaayante day lu mënta ñàkk ci lislaam su mbon bi mu yónnee yonent woote mu ba mbooloo gëm ko ba lislaam dëgër jullit ñi bari la doon digal ne nag ñi yàlla balaa suñu borom nangu seen gëm dañuy jaayanteeg yow ini suñu bàyyi woon ake inamaa yi bàyyi woon allah yadullahi fawqa aydihim saxaaba yëpp jaayante suñu borom wax loolu yàlla lañu jaayante nangu seenu jaayante waxaat ne laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta shajara moo tax bi mu jógee nag mu njëkk a jaante gi saasam wax ne bind ca géej ne baaya'tuhu fil bahri tahta shajara wal bahru musbidun wa hawlil fajara jaayante na ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca géej ga ca ron garab ga boobee géej gaa ngi duusu saay-saay si wër ma muy tubaab yi bi mu ñibbisee mu del waxaat ne baa yaxtuhu fil barri taxta shajara wal barru tayyibun wa hawlil barara del na jaante yén saasum ci géej ci jéeri ji ca roon garab ga boowet jaww jaa ngi tekk ñu baax ñu war moom ital bi ci njariñ bi mu jaayanteeg moom nag fas yéene liggéeyal liggéey bi mu ko liggéey dafa am mu ko laltaayee mooy ak bëgg da ko bëggee nu ko kenn bëggewut bay wax ne mënatuma bëgg ak njaboot mënatuma bëgg ay koom ndax ci bëgg yooyu war na ci xol bëggante bi da ko fees ba dara xajatu fa wax ne sama bëggeen saa sam far na ci sama xol bëggante bi far na ci sama xol bëggate ak njaboot wala ay koom del waxaat ne sax sama deret man Sëriñ Tuubaa ak samay waa kër ak samay doom ñoom ñëpp def naa leen ak njot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fee mu ne mahat mahabati al muxtaara sayyidana xubbil wal ahlin wal walada fii mu ne dami wa ahli wa awlaadi alfidaa lahu abdan xadima loo muskaan sanada del wax ne yonent bi bëgg naa ko bëgg goo xam ne su ma ko gisoon muy dox ba yëkkati tànkam nar koo jóge ci ak dégg wala mu nar koo jóge ci xeetu jiit du ma toppale dégg du ma du ma toppale jiit ja waaye sama lex laa ko cay lalal moo jaar lex ba ca des jàll def naa ko ak foofu ci bëgg amut xaddi wi xaayatun liri ji lil mujj tabaa min shawkatin aw ma yudaahi waxaat bëgg jim ko bëgg itam bëgg ñu ko teg ca billaahi ahbabtu rasulallaahi bëggoo gi nag mu firndeele ko jël léppam jébbali ko jël léppam jébbal ko boroom jaarle ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa lahu dahraniyati wa ilmi wa xidmati wa ruuxi wa jusmaani wa kulli bila sukli diiru jamono sama lépp laa ko jébbal sama yéene sama xam-xam sama liggéey sama ruu sama yàpp yaram ci gàttal sama lépp laa ko jég ci lu ma ci seete dara wax ko feneen giñ ko giñ ko billahi alladi laa ilaha illa huwa alkarimu alalim xayaati wa mamaati wa xarakaati wa sakanaati maa sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gin naa mi nga xam ne kenn du buur ko may moom samak dund samak faatu samak yëngu sama dal lépp jébbal naa ko yonent bi sallallahu wa sallam jébbal googu mu jébbal lépp na ci la nag firndeele ci di ko liggéeyal guddi ak bëccëg liggéey bi ñu ko liggéey rëy na yaatu na waaye dañ ko seetle ci ñaari xaaj ci tënk ndax dañuy wax ne ñaar fukki minute rek ci la ñuy tënk la xaaj lim ko liggéeyal ci jëmmam ak lim ko liggéeyal ci diineem maa li Sëñ Tuubaa liggéey ci jëmmi yont bi ci boppam ak lim liggéey ci diine yont bi te mooy lislaam su dee liggéey bi mu ko liggéey ci jëmmam mooy bind gi mu doon bind jëmi ci moom di ko tagg ak di julli ci moom loolu dem na ba atam mu nekk da ko séddale woon ñaari xaaj juróom benn weer yu njëkk yi mooy li dale muharram ba ci jumaada saaniya muy tam xarit ba ci ndeyu koor lim ci bind lépp daf ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa juróom benn weer ca des muy rajab ba zul xijja te mooy maamu koor ba ci tabaski lam ca lépp mu ci julli ci yonent bi salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maha yi juróom benn weer yooy tagg ak juróom benn weer yooyu julli boole teg sama tànk fi mu ko tegoon di ko roy ci zahir ak ci batin kon da koy tagg boole di ko roy ci lay wax ne madxu nabiyi rasulil basitil ajabi minal muharrami daynun lii ila rajabi ca lay wax ne ala man alayya walastu lahu kulla aamin hadaaya madih def ko aw sas dem ba liggéey ko ci liggéey bu rëy bu yaatu boo xam ne xamuñ ku njëkk ak ku mujj ku ci liggéey suñu boom liggéey bu ni toll mbaa bu ni selle mbaa bu ni rafete ak bu ni rëyee muy loo xam nag njëkkiwu ko njëkkiwu ko am na ñu ko fi jiitoon ñu daal liggéey leen saasam noonu nii di ko liggéey ci bind ci tagg ak di ko ak di julli ci moom ñu mën caa tudd ko mel ni Muhammadul Busayri ak ko mel ni euh, Kaab bun Zuhayr ak ko mel ni Xasaan bnu Thabit di ñu gën a siiw ci taarix ci ñu daa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tudd na leen tagg leen kaabun wa xasaan wal busayri xad baraxu wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asraru mu ne ñoom ñett ñooy day ay jàmbaar lañu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa te lañ bind tagg ko yonent saas lépp lépp da fees dell ak leer fees dell ki mbóot ñu sa bi mu door tàmbali da doon ñaan mel ni ñooñee mel ni ñoom ba yàgg ma ne mel naa ni ñoom ba yàgg mu ne romb naa leen wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xasaana lay tegtal lam ne maa leen raw nag du lu mu wax nii rek waaye day lu lu tugam seet loo xam ko xool gisul ko lamb daj ko ndax bu ñu xoolee ne ñoom ñoo ñu ko jiitu woon lañ bind ku ci nekk ñoom gis naa diwaanam diiwaan mooy fi dajale li bind lépp waaye la ka ab bind lépp ci yenn saasam soo ko gisee mbaa la ca xasaan bind mbaa la ca busari bind soo ko dajalee lépp lañ koy mën a gam-gam leen mooy nuuru dari ni nuuru dari ni kan soo boole seen mbind ñoom ñépp benn diwaanu Sëriñ ko ëpp soo jël diwaanu Furqul Mashuun moo ëpp ñoom ñëpp lañ bind soo ko boolee soo jël diwaanu xuraaniya moo ëpp ñoom ñëpp lañ lañ soo ko boolee soo jël siful jawaahir téere boo jël ci ci dawaawiil yi moo ëpp ñoom ñëpp seen seen mbind soo ko boolee kon benn firnde la ñaareel bu mooy ñoom bi ñuy liggéey leen station dañoo ne ci seen biiri kër di xel ji seenu njaboot suñu demande liggéeyal yéen station jaral ko tàggoo ki bokkam tàggoo ki taalibeem tàggoo ku mu am ak ku mu xam ne ci biir noonu yoo xam ne saa buñ xëyee xëy ci lu fi jële bakkanam saa buñ gontoo gont fi ci lu fi jële bakkanam ba muy wax ne xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li mat xili si andul ma di xasiru boobee dis na lool sama kër ya wéet na sama njaboot tasaaroo na te dara teguma ko lu lu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa kon lam ko lam ko jaral da koo jërlu kenn moo tax mu am ci lu ci kenn amut ñetteelu firnde bi mooy ñoom dañ doon tagg yoon saa ci seen coobare bopp Sëriñ Tuubaa ci bopp moo sàkku ci Yàlla mu tànnal ma ko man Sëriñ Tuubaa may may ki koy liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi ak alal la si talaba kawni al kon nee na yoon saa su ci moom moo ne suñu doon tànn ma Sëriñ Tuubaa moo doon ko may liggéeyal moo tax mu wax ne képp ko dem ba naw sa bopp ba yaakaar ne liggéeyal yonent bi lu toll ni mu ko liggéeyal mbaa ni mel sa njot nax dala man annahu yakunu abada yurdihi billasi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anni alxadim bima wada an mislihi kullu xadim képp ku jot ne def na ko lu toll ne ba lu mel ni li ma ko liggéeyal sa jot nax na la sànni naa sa jot si yàlla bi dina xam li ko li ma ko defal ku dun man lottu nga ci kon la muy tegtale mooy kon yayoonu tudd xadiimu xadiimu rasulillahi ndax li ma ko liggéeyal kenn na liggéeyal ku lu ni toll mbaa lu ni mel li ma ciy jeexale mooy benn nett li boo xam ne sëriñ Mawlaay Buso moo ko nette mu sëriñ Mbàkke Buso am na xasidaam goo xam ne daf caa nett li xar baax yi sëriñ Tuubaa def ci géej gi waaye sëriñ Mawlaay nee na xar baax bu mu ci nett li bu mu ci indi ci xasida ga sëriñ Tuubaa ko nett ci nett ci làmmiñu boppam sëriñ Siidi Buso doomam mas na wax ne bi muy bind xasida gi ma ko doon bindal ne lele mu tudd ko benn xasida ak benn benn xar baax mu ne ko wér na waaye nag ba ko suñu tubaat nettali daf ma faa fekkut kon nag duma ko ci boole nga xam ne bu mu ci indi rek lam ñu suñu tubaat noppam xasida googu da caa indaale da caa junjaale ko ñuy wax yusuf an nabahaani neen Sëriñ Tuubaa daa wax ne Yuusufa de góor la ndax bi ma nekk ci géej gi liggéey sama borom saa bu ma geesoo gisu ci sama gannaaw daan na am te kon ku ma jot dama ne moom lay doon am te kon ca waxin wala mooy su ma noonu am jot ma su ma noonu am kon kooka lay doon Yuusufa Nabaxandi ne an la ko may loolu dafa doon ko daal liggéeyal yi saa sañ ci anam gi ko Sëriñ liggéeyale di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba liggéey ba rëy lool man dem ba jàpp ne mooy jiit ñépp ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ba bis nag mu laaj ko yonent bi saa ne ko waaw ndax am na ci kaw suuf ku la liggéeyal lu toll ni ma la liggéeyal ne yonent bi ne ko jàmbaar nga lool de waaye am na koo xam ne àggoo ko sax ci wax ba nga ko laajee ana kooku kan la mu ne ko Ahmadu Bamba tudd dëkk Tuuba loolu rek la ko wax te nee na keroog ma si dégg tur Ahmadou Bamba keroog la ma si dégg itam ba dëkk Tuubaa ci kaw suuf sëñ mu lay nettali ca at moom mu dem Makka aji bi mu ajee kum dajal ci ujaaji daan laaj ndax xam nga ko tudd Ahmadou Bamba wala nga xam fu tudd Tuubaa di ko def mba daje ay Ivoirien mooy ñu dëkk Côte d'Ivoire te xam nga am na ci Côte d'Ivoire dëkk bu tudd Touba te kilifa yi fa dëkk Bàmba lañ sant moo tax bi leen laaj yi ne ko ah kay xam nañ ko réew ma ñu jógee foofa ne la des la des ca aj ga mu def leen ne àndandoo ba aj ga jeexee mu ànd ak ñoom dem Côte d'Ivoire ba mu demee ca Touba googee fekk fi kilifa yi mu fekk ba mu leen ba mu waxtaanee ñoom dañ ko ne Ahmadou Bamba mi ngi wax Touba ga ca Sénégal la dëkk ñu ne ko waaye jamono yi ñu wax ne yoon népp nag dañ ko exil tubaab yi dañ ko jàpp mbottale fa addi yu bari saa bu ngeen yégéen ñibbi seen na ngeen fa sama addi yi mu jot ci ndax dellu am réew moom liban la dëkkoon ak libaane la suñu waa jóge na ci géej gi ba dem gànnaar di fa dem ceyeen ba ñëw njaareem ñu doon ko indil xedd yi na baxaan yi batale woon man nag ci sama gis yi su ma jàpp ne pas-pas bi mu amoon ci suñ Tuubaa ba tax koy jóge diggante réew ak réew tam wóor ma bu ko gisoon day jébbalu pas-pas ba mooy la ko may Sëriñ Tuubaa xam ne ci géej gi saabu geesu gis géej gannaawam kon day mel ba tey ci Sëriñ Tuubaa la ko amewaat ci barke Sëriñ Tuubaa la ko amewaat kon dafay tegtale taxawaay boobu li ñuy jeexale nag mooy ñu xam ne Sëriñ Tuubaa moom ku ko bañ amut ku ko xamut moo fi am day ko xam ne dara àddina mosu koo tax a jóg te na ko dafa wax ne yaari yëf moo ma tax a sañc Tuubaa daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi bi ma agsee yaar laa fi fekk wit nde ak saawo mooy comme apaal rek li fekk bi ma fi ne jàng ñaara ma fi fekk ku yàlla dong ñor ak ko àdduna dong ñottami mu boo yàlla mu ne ñooñu ñaan na kenn jaaxaluma ci su dee ki yàlla ñor dinaa ko womat ci yoon yàlla ba ne ko yàlla ngi nii ki àdduna ñor dinaa ko xëpp àdduna waaye ëllëg bis ci nag tiraanga yam sama borom di jox ak xéewal yam may jox su ma koy séddoo ak sama ñooñ bu ma xooli bat ndax leen seqoon joxoon naa ko ci àdduna loolu la ta bàyyi xel la mu ne ki ma jaaxal da mooy ki nga xam ni ma sama boon def neexu ko loolu nag laa ne bariwut xanaa ko ko xamut ma seen doxal seen doxal ku ma si moom da ko xamut rek seen doxal loolu ku ma saan diw daa bañ si moom déet da ko xamut rek loolu bu ma ci nett jeexale ko mooy Sëriñ Omar ñaan kenn la ci ñi sëñ Tuubaa defar ma nga jóge woon ci Saalum mbaayam doonam boroom xam-xam bu mag di jàngale nekk kilifa gox ba mu dëkk mu ñëw jébbalu sëñ di ko tërbiya mbaayam tàmbalee bind ay lettre di yónnee sëñ naa ko sama doom jël xamul la ko fi téye waaye du xam-xam ndax xam-xam rek moom kenn doo yees di ko di ko wutiwaat fenn ndax alxuraan de naa ko ju bare bare di bind lettre di bind lettre ba bis na suñu tubaab ne suñu barka boy boy ñëw dem ci sa baay ndax lettre yi muy bindal ëpp na daal bindu lettre jox ko ne soo demee nga jox ma ko. ba mu àggee daa rusu dugg ci kër gi ndax melokaan wi mel ba ca fajar bañ ko giseen cooli bari lool ba cooli bari mu yëkkati lettre bi ci suñu tubaab jox jox baayam. baay njàng fekk suñu tubaab da ko ci woolu taw suñu baat toll na foo xam ne boobu comme wala da ñëw comme wala da ko ji fekk mooy kilifa gox mu daal dajale waa gox ba ne leen ah sëriñ bi ñu wax ci njaarim de moom ay woolu bëgg a xam lu ci seen xalaat mboolem séddli ko ñetti xaaj ñii ne ko ah gannaayu boroom xam-xam nga mun laa jaaxal ca dara demul wujji ko rek ñeen ñi ko daal ah ñeen ñi ko nekk daal gannaaw day kilifa ngay kilifa soo la la fekk si ñeneen ña ne ko gannaaw am ngëb sëriñ da dem ci sëriñ sëriñ tàggu ko rek bu la bàyyi nga dem bu la bàyyi nga toog mu gën a rafet lu xalaat boobu fekk am na mu xaddam boo xam ne moo ko jox yódd mooy mooy sëriñam mu daal di waaj dem ca dëkk ba sëñ ba dëkk dem fekk sëñ ba xëy ndar mu fekk fa doom ja kon nett leen ak li ko tax a jóg mu ne ko ah, gannaaw ñëw nga fi ñëw nga ba fii de duma la yebbi waaye daal li ma lay dénk daal mooy baye boo wut ab yóbbal ndax soo demee soo fa lekkee dara danga fa toog ba léegi fi am na ñu gëm lool ba léegi gëm nañ ne kafe gi Tuubaa ku ko naan da nga jébbalu <laughs> jàpp nañ dañ ca njabar goo xam ne ku ci naan rek faaw nga jébbalu bari ñoo xam bu ñëwee Tuubaa xalaatuñu fee naan naan café mu daal defarlu ci dëkk ba baraay bu baree bari mi ngi ànd ak wenn turandoom góor gi mi ngi tuddoon sëñ Abdou Kumba ñaan man turandoom wax ne ab xale la bi mu jëlee saxaar ba wàcc njaareem bi ne cëpp ci saxaar gi rek gis ay ponkal yu bàgg naan ana sëñ Abdou Kumba ñaan nee na man ci sama xel waa ji mbóori njabar dëgg dëgg dëgg lu ko xamal tey lay ñëw nee man leen maa ngi nii ñu ne sëñ mooy sëñ bay wax nañ la gàttandu te dalal la mu topp ci ñoom ñoo dal ko ci barab boo xam ne barab bu yaatu la lépp am fa ñu yégal ko sëriñ bi ca bëccëg sëñ bi yónnee ko ay tiraanga ay añ yu baax ñu ne ko sëñ bee ko jox mu ne tubaarkàlla bañ génnee mu defar ko ba mel ni jëfandiku na ci dal di ubaat daal di génn ba ca gannaaw dëkk mu mu ca pël gu fa nekk mu sib fa sow defa ci baraay bi añ ci ba suur dellusiwaat toog ñu tàkkusaani suuf sëriñ bi woolu ko mu solo solo solo ba mel ni janjaar yi xam ma ngi ni ñu bëggoon solo fa bu fees del di dugg ci kees yi baa gi ci kees gi sëñ bi nekk fekk sëñ bi toog ci suuf jullu penku teg ak romb jaan ci wetam góor gi waaxu jubal ci romb jaan gi daal di ferenku layu jox ko sëñ bi ne ko bataaxal yi nga doon bind yëpp de agsi na mu ne ko lu ca ne rek maa ko wax de ne ko xam-xam de moom alxuraan rek tafsiral naa ko ñu baree bari nga naan alxuraan la tudd nag sëñ bi dema moom koy firee mu wax wax ba lam ca xam jeex sëñ bi ne ko loolu de aw yoon la ci primi rek waaye des na indilaat ko ci yeneen xóot xóot yeneen maanaa yu bees taq yoo xam ne alxuraan la koy indilaat la koy fiiree ak xadis yu wér bokk lu ëpp lañ ca wax ba mu jaaxle mu dellu na ko ana aay sàngu mu dem ca te boobu ba ca la cax mu jeex mu ne ko yoon la ci firim waaye des na dem ca moom ba mu góor gi ñàkkutoo tibb mu ne ko man ngaa dellu ca dal ba mu dellu turandoom yu ànd la doon ko nettali nee gis na daal tey góor gi dafa tayal lool ne guddi gone daa fanaan nafil waaye keroog moom julliwul ndax ndax tayal ca ngoon sëñ bi yónnee ko ay reer mu sànni fee baraabe reer ci reer yi ba bu suur ca suba sa sëñ bi yónnee waat ko añ mu añ ba suur ca waxtoo sëñ bi wolwaat ko mu summi kii yëpp ba mu des xorog caaya door dem ba mu àggee fekka sëñ bi fa mu toogoon tegaat romb jaan gi mbooy fa romb toog ci suuf balaa sëñ bi laata xam ne ko damaa bëgg daal bala nga maa wax nga dimbale ma jéblu ma noppi kon day wax ne ko sëñ Tuubaa ku ko bañ amut ku ko xamutam asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa naa kon loolu li ñu waxoon ne allah bu dikkee dana leer e, xamle na ci xamle bu gàtt ci sukkandiku ci li sëriñ bi waxal boppam Abdullahi wa Xadimu Rasul. ak jaamu yàlla ak sëriñ beeg um, ak xam-xamam ak ragal yàllaam waaye tamit ak tegam yonent bi sallallahu kenn mës sa teg lii jataay bi gàtt gàtt lim ci xamle mat na sëkk waaye yooyu mu mujje it nekk lu am solo tañ war cee jële aw sasit nag mooy sëriñ bi ku ko bañ amut dañ koo xamut kon daa mel ne suñu dee toog ba nëga mu mel ne am nañu ko bañ kon nag ci li may jàpp man sama xel mu gàtt damaa defe ne ñun ñii ñoo liggéeyut ñoo ko jàngaleegut yàlla nañu yàlla dimbale nag bañ xamle ko niñ ko war a xamee ndax bu ko ñëpp xamee jariñu kon sëñ Ahmadou Ndiaye bisimilah. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa inni uhiisuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi rahmaani rahiim ashaabul jannati xadiimika allazii kafaytahum malaam ilayka yaa xayral bariyyati salaam خديمك الذي كفيته الملا إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملا صلى أبدا مع السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام مستمقام دونه كل مقام يا نور كل عابد صام وقام أنت الذي أخرجنا من الصلاة بكلمات من حباك بالكلام بشرك الجميل يا وإمام بما نويت فيك سعيا ستما بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا والسلام أنت النبي والرسول والهما بك انقياد صالحين بالسماء لك لدى رب الورى كل مراد لك به يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باقي تعالى عمنا بك فأنت سيدي خير الأنام nawaytu sukraha alayka kullaha wa kulla sahrin wal kitab muridha nawaytu sukraha alayka biqila wa khayriha ya sa jawani al kalam مسرما بلا انشرام يا قائدا لي من إلهك المرام هدية مسرما بلا انشرام يا قائدا لي من إلهك المرام تبت لربي سائرا بسان سان لك وقبله عبرت ميسان